waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah Abdoulahi Lo di membre daayira ci daayira Muqaddamatul Xidma mooy daayira bi nga xam ne mooy saytu jumaay Touba ak penc mi ak ah, ba ci armeel yi ci ndigal la Cheikh Saliou la daayira bi sosu 1994 ah, exposition bi ren bi bi nga xam ne waa daayira Muqaddamatul Xidma ñoo koy amal ci biir waa laaj na saxaafa mooy commission culturelle bi ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu exposition bi ci njiital Cheikh Abdou Abdou Khader Mbacke euh, kon ren jii nag euh, dañ ko jagleel euh, ci gëstu yi nga xam ne lañuy moom la ñuy def année bu jot dañ koy xool ci mag ñi ñu tàmbale woon ko ci Seyul Xadim ak ci xilaafa yi ñi fi jot a jaar suñu Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Sidil Muxtaar nga xam ne daaw moom lañ ko jagleeloon ren jii nag ñu xalaat ne nañ ko tuddee kon ñi nga xam ne mag ñi àndoon ak sëriñ sëriñ bi ñu tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ak moom suñu Maam Mor Anta Sali te moo tax ñu tànn suñu sëriñ Maam Mor Jaara Mbàkke borom saam moom lañ jagle exposition bi def nañ ay gëstu yaatu ci mu ak dundam ak ay liggéeyam ak dëkk dëkk yi nga xam ne sos na ko ak li nga xam ne jot na koo liggéey ci kaw àdduna liñ ci man a xam mm, ren sëriñ Maam Mor Jaara moom lañ tuddee exposition bi. exposition bi nag daayira mu xanaa mu moo koy amal ci biir liggéey bi nga xam ne da koy def ngir jàllale. njàngalam Seexul Xadim eh, ak sàmm gi nga xam ne moom lañu Serigne Saliou dénkoon barab bi eh, ñuy sàmm jumaa ji moo tax exposition bi dañ ciy leeral li nga xam ne moo aju ci jumaa ji histoire jumaa ji ba ni mu sosoo ci jamonoy Seexul Xadim ak ni ko sëñ bi amoon yéene tabax taxawal ko eh, ba sëñ Moudou Moussa ñëwee moom itam liggéey yi nga xam ne jot na ko cee def ci raay bi commencé liguey bi Cheikh Mahamadou fall tamit def ci liguey yam solo ba eggale ko inauguré ko 1963 ku ñew ci exposition bi nga xamné ne daayira Muqaddamatul xamné mo koy amal di nga ci fekk histoire yoyu ñu bind ko ci langue yu ñetti langue wala wala ñaar muy français ak arab ak euh, lenn ci wolof ren ji ñu jagleel ko ren ci magalok 1441 hijriya euh, di euh, magalok 2019 gi ren dañ ko jagleel serigne Mamour Diarra di magi Eh, ku baax ki mooy dañ koy wooye magi mag mooy eh, doom soxna jaara jooju nga xam ne moo bokk ak eh, sayul xadim lépp moom nag lenn ci ak dundam mën nañ cee jànge mooy mi ngi gane àddina 1850 ci Mbàkke Bawal ni nga xam ne tamit Cheikhul Khadim tamit foofu la gënee jamono moom tamit bi mu gënee jamono ba mata dal jàng Euh, nijaayam sëriñ Mahamadou Bousso tañ ka gën koo miin ci sëriñ Bousso be moo ko jàngal alxuraan jàngal ko lu bari ci xam-xam mu jàng xam-xam tam ci yeneen boroom xam-xam yu bëree bëri ba géeju ci ci langue arabe ak euh, xam-xami diine yi euh, moom tamit muy ku jàmbaare liggéey liggéey yu am solo mooy sos ay dëkk ngir jàngale lislaam ak yare ci jàppale nekk tamit ku jàppale sëriñ bi ci wootam bi yaatal ci loolu liggéey ci liggéey ba am solo euh, sos ay dëkk yoo xam ne da ko defoon ngir jaamu yàlla ak yar ak euh, fas yéene jàllale wooteeb sëriñ bi euh, ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi tàmbalee woon. bokk na ci dëkk yi mu sos mooy Mbàkke xewet gi nga xam ne daanaka lépp ca njabootam foofu lañ nekk. ak fu ñu dëkk bu ñuy wax Saam moo ko sos ak dëkk bu ñuy wax Misra ci yoonu Daaru Muxti wi ak bu dëkk bu wax Bustaan ak yeneen dëkk yoo ko taxoon mu sos ko mooy jàngale ak yara ak liggéey. Mm, eh, Sëñ Mamour Diarra kon moom lañ jox jagleel eh, exposition ren bi nga xam ne moom la daayira Muqaddamatul Xidma di amal ci année bi euh, ñu toftal ci tamit soxna Fatimatu Dia euh, moom tam mooy euh, bintu Cheikhul Khadim son Fatima Madu Dia ñu bari daa mel ni ñoo xam dëgg-dëgg euh, ay jaar-jaaram moo tax ren tamit ñu boole ko ci gëstu yi leeral euh, ak ak dundam ak ay liggéeyam moom de mu nekkoon jàmbaar lool ci euh, biir liggéey jumaa ji wax nañ ne daana jër sax ay takkaayam di ko jaay ngir mën a jàpp ci liggéey bi ak yeneen defoon ay tool tamit yoo xam ne da la ci daan génne mu koy jàppale Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Soxna Fatima Dia moom moo mag ci njabootuk sëriñ sëriñ bi ñu góor ñi ñu jigéen ñëpp moo moo moo ci moo ci mag ndax mi ngi gën a àddina 1879 ca Kajoor moom tam euh, leeral nañ ak dundam yaatal nañ ci lool. Euh, bokk na li ñu nga xam ne la leeral nañ ko tamit ci exposition 2019 bi mooy euh, waa Daaray Kaamil mooy ñi nga xam ne ñooy jàng alxuraan yi te sëriñ bi tudde la tudde woon leen Daaray Kaamil bokkut ak Daaray Kaamil bi nga xam ne moo gën a siiw te mooy bibliothèque bi. foofu moom ay téere la ak ay téere xam-xam ak téere gëstu waaye daari kaamil bii nga xam ne mm, moom la wax mooy daari kaamil bi nga xam ne ñooy kuréel bi jàng alxuraan toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett te sëriñ bi tuddale woon leen tudde woon leen daari kaamil ca Mauritanie 1904 te wax nañ wax nañ ne tamit eh, daari kaamil mi ngi sosoo woon fii ci Touba te jamono yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi sanc dëkkam bii nga xam ne jamono boo xoolee ci biir jumaa ji ci penk bi fii barabu sëriñ bi nekk Seydul Xadim ah, daari kaamil moo jàkkaarloo ak ah, moom ah, foofu suba gu nekk danañ fa jàng ñeenti kaamil ñaari kaamil eh, buñ julee suba ba nappi ginnaaw tusbaar benn kaamil ginnaaw takkusaan benn kaamil loolu jamonoy sëriñ bi ba léegi ba tey jii wax bët bu set Eh, danañ ko fa amal daal di gaan boobu gës nañ ci ñoom yaatal nañ ci lu am solo eh, muy ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne duñ yokk duñ ko te sëriñ bi yoral leen seen lépp muy ñu mokkal alxuraan amee ay jikko yu rafet ñoo xam ne dañ leen di tànn daal di gaan boobu teg def nañ ci ay ay gëstu ren ji ci exposition daayira Moukhaddamatoul Khidma muy lu am solo